mois de décembre atum 2019 lañ jébbal Serigne Mountakha Mbacké Bassirou loo bu njëkk projet Karamati Xatu yi di xasidey Cheikh Ahmadou Bamba yi nga xam ne dañ koy bindaat loo bu njëkk boobu nga xam ne moom lañ jébbal Serigne bi juróom benn diwaan moom moo ci nekk di li tàmbalee ci numéro 9 ba 14 ci alxamis dëppoog le 4 juin 2020 jébbalaat nañ Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ñaareelu loo projet Karamathi Khatouyat yi ci njiital Serigne Cheikh Fatma moom Serigne Moustapha Bassirou mi nga xam ne mooy coordonnateur projet bi. muy leeralaat diwaan yi nga xam ne ñoo nekk ci deuxième loo bi. ni ngeen ko waxee euh, ci décembre 2019 ci la ñu jébbale woon liggéey bii di euh, loo bi njëkk ci projet Karamathi Khatouyat yi. muy euh, projet boo xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko yëkkati naal ko euh, def ci alalam ngir ñuy mool ay téere yoo xam ne lenn li sëriñ Alhaji Mbàkke bu sëriñ Moustapha Absa moo ko bind lenn li sëriñ jiilim sëñ Cheikh May euh, bind ko ci mbindum machine mbindum ordinateur ni ma ko waxee nag ci décembre bii ñu génn ci lañ joxe woon juróom benn diiwaan yu njëkk yi muy diibaan numéro 9 numéro 10 numéro 11 numéro 12 13 14 muy juróom-benn diiwaan euh, euh, numérotation boobu nag li ko waral mooy lu jiitu sëriñ bi di yëkkati projet bi am na kilifa yu mooloon euh, li dale 1 ba set muy diiwaanu Mafatihul Jinaan sëriñ bi itam moo financé woon meneen mbokk mu mool diiwaan Minanil Baaxil Xadim muy numéro 8 bi. kon ñun bi ñuy tàmbali liggéey bi ñoo ngi ko tàmbalee ci numéro 9 bi kon euh, loolu nag mooy juróom-benn yu njëkk yi euh, ci alxames ji ñu génn nag ci lañ jébbal sëriñ bi juróom-benn diiwaan yi ci topp muy numéro 15 bi di euh, bidaayatul xidma fi salaati ala nabi rahma bi ci topp di diiwaan numéro 16 bi di almuqaddimatul kubra fi salaati alal bushra bi ci topp di diiwaan numéro 17 di tardul waahidil qaharil jalil al muwajjahu ila shaytaanil garuri addillil muy diiwaan numéro 17 bi diiwaan numéro 18 bi euh, di diwaan miftaaxun nasr fi duaa i laylatil qadr mooy diiwaan numéro 18 diwaan numéro di juróomeelu diwaan bi di ataaya alkarimi albaaxi arrafi fi ataaya alkarimi arraxi alshaafi muy diwaan numéro 19 diwaan bi ci mujj di diwaan numéro 20 moo nekk nii mooy diwaan miftaaxul fawzi wal anwaar fi tawassuli bin nabiyil muxtaar mooy diwaan numéro 20 kon lii mooy diwaan yu bees yi nga xam ne moom lañ doon jébbal sëñ bi eh, ci alxemes yi ñu génn mu am ci mbégte lool nag ndax ñi ngi ko fekk sax mu nekk ci fatu ci këram gee ci daaru tanzil waxoon ne nañ ko may eh, buñ ko yëgal kenn ndax dafay dallu daa am ci lu mu nekk waaye biñ ko yëgalee liggéey bi ndax xam nañ ni ko liggéey bi ñore mi ngi ko doon xaar dafa daal sawar ne nañu ñëw ndax liggéey bi moom ci lu mën a nekk danañu dalal ngir ñu jébbal ko liggéey bi kon ci lañu dalale wane ci mbégteem lool dem ba àgg ci wax ne wóor na ko ne sëriñ Touba bég na ci liggéey bi kon nag loolu di lu rëy ci ñun ñim dénk liggéey bi euh, wax ne itam euh, euh, liggéey bii mooy yuqu liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba mooy yuqu bi noonu la ko waxee kon nag ñu xam fi ko liggéey bi toll te yàgg naa wax ne itam euh, liggéey bu jëm ci xasaayit yi mooy liggéeyu sëriñ tubaa mooy liggéeyu boppam noonu la koy waxee liggéeyu boppam bi noonu la koy waxee ndax sëriñ Touba lii moo ko liggéey kon mooy liggéeyu boppam bi dafa dafa yàgg di wax ne nañ ko sàmmal liggéeyu boppam bi lu ne mën nañ ko sàmm ci ndono li ci liñ koy liggéeyal waaye liggéeyu boppam bi moom na ci jiitu kon euh, lu ko ñor la Euh, xam naa sama mbokk sëriñ Ibrahima Khalil moom sëñ Moustapha Absa dana dellusi ci leeral diwaan bu nekk li ci nekk ci ay xasaayit ak topp gi nan lañ ko doon saytoo waaye daal ñu wax ne euh, sëriñ bi biñ moolee téere yi ba noppi itam nam ko defe woon ci loobu njëkk ba euh, dafa wax ne lenn li nañ ko joxe lenn li nañ ko denc ngir këruk xasaayit gee muy liggéeylu ca université ba te waa Hizbut Tarqiyyah di taxawu tabax ba euh, su noppee lenn li ñu denc ko fa muy ab denc boo xam ne euh, denc gënu ko rëy denc gënu ko am solo ndax denc liggéeyub Serigne Touba la euh, mu ne itam am na ci loo xam ne nañ ko séddale ci jumaa yu mag yi daanaka yoon wi penc yu mag yëpp muy jumaa yu mag yi ci Touba muy jumaay njaareem jumaay Serigne Touba ji ci njaareem muy jumaay Masalikul Jinaan muy jumaay Daaru Moxti Daaru Salaam euh, Mbàkke Xewar ak pénci yoon wi yëpp euh, fexe nañ ba jëloo euh, bu njëkk ba ñu yóbbu woon fa ay lim ngir teg ko fa ñu di ko mën a jariñoo di ko mën a durus di ko mën a jàng waaye itam maktab yi muy maktab Cheikh Cheikh bi ci Touba ak yeneen maktab yi ci réew mi Eh, ci yoon wi fexe nañ ba téere yi itam dem fa kilifa yi itam eh, sëriñ bi ci boppam yónnee na ci ñoom muy bokkam yi muy rakkam yi eh, yónnee leen ci ay lim ngir séddale leen ko kon muy lim yoo xam ne yu yaatu la yoo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko jël séddaleel ko boppam sëriñ El Hadj Mbacke itam mi nga xam ne muy jàmbaar ji nga xam ne sëriñ bi Euh, ngir bëgg koo naw bëgg koo kañ moo tax mu mool téere yi mu bind ndax reconnaître ne jàmbaare ngi ji joo xam ne li mu bind ci mbind Serigne Touba kenn xam nu mu toll lu baree bari la sotti ko ci loxoom euh, Serigne bi am yéenay mool lépp moom itam sëriñ bi yëkkati na ci lim bu takku jox ko ko ngir euh, sante ko ko ngir kañe ko ko itam ci liggéey bu am solo bi mu liggéey. waaye nag am na ci xaaj boo xam ne sëriñ bi dafa bëgg itam mu yaatu ci bokki taalibe yi waaye mën a dëgëral mën a wéyal liggéey bi ndax euh, am na lim boo xam ne daf ne nañ ko wecceeku ci njëg gu jàppandi ngir taalibe yi ku ci bëgg am collectionné li sëriñ Tuubaa bind ci ay xasaayit li ci ëpp bokk nga mën a tàmbali di ko collectionné loo bu génn nga mën cee wecceeku mën koo collectionné euh, yow def ko ci sa bibliothèque personnel wala sa kër wala sa jàkka wala foo ko mën a def loolu kon lim la boo xam ne itam jaaykat yi téere yi ci Touba ak yi ci Ndakaaru ñoom it am nañ ci ay lim yoo xam ne ñu ngi koy wecceeku te lu luñ ci e, jële ci lañ ciy wecceeku itam dañ koy delloowaat ci liggéey bi ngir móolewaat ko yeneen diwaan ngir liggéey bi gën a mën a dëgër gën a mën a law gën a mën a yaatu ni ko sëriñ bi bëggee loolu loolu mën a am kon daal loolu mooy e, liggéey bi nga xam ne e, mooy projet Karaamati Xattu Yadi sëñ bi dénk ñu ko di ñu ko coordonné loo euh, liggéey bi foofu la toll kon euh, bañ ko tàmbaleeg léegi ci ay weer la toll moo la gun nañ fukki diwaan ak ñaar ci juróom benn yi nga xam ne moo mujj ñëw euh, muy yees yi ñi ngi wéyal liggéey bi itam nag ci saytu yeneen diwaan commission bi koy topp mi ngi wéy di ko topp incha allah su ñuy jébbalewaat yeneen diwaan dana dana boole mbindum sëñ jiilim sëñ Cheikh May Euh, muy mbindum euh, ordinateur mi ak itam mbindum sëñ Alhaji Mbàkke nga xam ne lépp day wéyal liggéey bi ci anamuk ni ko sëriñ bi bëggee li may jeexale moo di euh, woo sama bokki taalibe yi rek ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne bokk na ci liggéey yi gën a ñor sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha te ni mu ko waxee biñ koy jébbal téere yi ne wóor na ko ne sëriñ Touba bég na ci kon jàpp naa ne mbég moomu ku ci bëgg a dugg taxaw ci jàpp ci liggéey bi ngir liggéey bi gën a mën a dëgër gën a mën a law yaakaar naa loolu taalibe bu ne am na ci responsabilité kon maa ngi woo sama bopp ak sama mbokki taalibe yi ñu góorgóorlu ci fexe suñ kem kàttan ci am téere yi ngir man ko denc mu nekk suñ pàgguteef loolu yaakaar naa taalibe bu ko def euh, da nga gis njariñ li tey da ko gis ëllëg ñu leen di wax ne euh, kii maanaam bu mujj bii nii juróom benn diwaan mi ngi ci diwaan yi mooy miftaaxul fawzi wal anwaar ataaya al karim miftaaxu nasr bidaayatul xidma al muqaddamatul kubra tardul waahidul qahar mooy juróom benn diwaan yi ci nekk juróom benn diwaan yi boo boolee xasida yi ci nekk yëpp mat na ñaar téeméeri xasida ak juróom fukk ak ñaar muy deux cent cinquante xasida mi ngi ci juróom benn diwaan yooyu xasida yooyu yi ci ëpp ginnaaw géej gi la ko sëriñ bi def mooy yi nga xam ne moom la digle woon ñi di ko jàng tànnaloon ko murit yi kon soo xoolee li ci ëpp ci ci xasida yooyu ginnaaw géej gi la léegi nag yi ci gën a ràññeeku mooy miftaaxu nasr bi ñu miin nga xam ne ci leeratul xadar la ko jëmale ak weeru koor ak Hamsa Sine Munaaye ak Munaaye Hamsa Sine muy ñaari xasida yooyu nga xam ne suñu Abdou Lahad dafa waxoon ne ci su yi mujj ci sëñ bi def itam ci bokk na ci ci mujj waaw nga xam ne moom ci ci ak mujjam la ko taalif wakaana xaqan bi ñu miin wala xadd karam na jaalibatul maraaxib eh, rabib ma yashrahu muqaddamatul kubra moom itam laata muy dem ci géej gi la ko defoon àggalee ko ci géej gi tàmbale ko ci laata mi dem ci géej gi àggalee ko ci biir géej gi moom it bu gars yi min nañ ko lool ñu di ko wax Cobra ñu miinee Cobra ci duuskat yu bari ak Bushra lana xat ataanal juudul karamu minanul baaxil xadim yaa mukrima bay ci jaaran kaana aw zaara yooyu mooy yi nga xam ne bay yiñ gën a miin rek ci ñiy jàng waaye yi ci nekk yëpp li ma ko waxee léegi deux cent cinquante xasida moo ci nekk ñu xamee ko noonu kon loolu nag tax na kon nun murid yi li ñu ci war mooy xam ne tasaare gi bëgg ñu jariñoo ko rek moom la ci jublu waaye borom moom ba mu ko bindee xam nga lépp ci ay gaal la ko defoon tëj ko waaye teewul xamoon na ne jamono dana ñëw ba mu tasaaroo nii ñu ngi ñaan li ci des lépp itam yàlla sottal ko dem dëppoo bëggug sëñ bi te lenn loo xam ne bokkul ak na ko sëñ bi bëggee bañ caa dugg barka Cheikh Xadim li may dégg di dégg mati rek di dégg di dégg ba dégg ñaar yooyu nga xam ne mooy doomi mooy sëñ jiir moom sëñ Cheikh May ak sëñ Fallou moom sëñ Moustapha ci seen taxawaay ak seen may dégg ba suñu borom dogal nag ma am lu ma ci xam. sëñ Fallou mii moom. amoon naa ndigal ci moom jaar na fi man ci ndigal sëñ Saliou. sëñ Khalil moom mii moom amoon naa ndigal ci moom ci ndigalal sëñ Saliou jaar na ci man. moom it taxawaayu ñooñu rek la yor. moom it taxawaayu ñooñu rek la yor. ñoo ko andi itam ñoo bi ma gisee gisee loolu. bi ma gisee loolu. mu yëg ko mu sori ci man lool. ma yëg mu sori ci lool. wóor na ma mu wóor na ma ne. lépp lu ñuy liggéey sëriñ bi. lépp lu ñuy liggéeyal sëriñ bi. liggéeyal ko si xasida yi moo jiitu. liggéeyal ko xasida yi moo ci jiitu. bi ma xamee loolu. bi ma xamee loolu. sama doom jee di seet di seet Moussa di seet suñu Cheikh Fatma. sama doom jee di sëñ Cheikh Fatma moom sëñ Moussa Bachir. yàlla defal nu ci tawféex ci moom. la yàlla defal nu tawféex ci moom. defal nu ci njub. defal nu ci xam-xam. defal nu ci xam-xam. yàlla xëy ko itam. yàlla xel ko itam. ci liggéey boobu. ci liggéey boobu. liggéey liggéey boobu ci liggéey yëpp. ndax liggéeyu sëriñ bi ci liggéey yëpp. liggéey boobu mu doon mu defal boppam. liggéey boobu mu defal boppam. digg ma borom. diggal ma boromam. digg ma yonent diggante ma bi. digg ma boppam. diggante ma boppam. Hmm. ma daal di santaat nag. ma daal di nag. Cheikh moom yi sëñ Cheikh nga xam ne dafa daal di sama xel dafa jëm ci li ma yéene sama xel dafa daal di dal jëm ci li ma yéene loolu nag tax loolu nag tax tawfeex ji ma am ci sama doom yii tawfeex ji ma am ci sama doom yii ma bëgg mu bëgg leen a fekk ma bëgg leen fekk bëgg lu ñu bind rek bëgg lu ñu bind rek fu seen fu ñu ca àgg ak yitte rek fu ñu ca àgg ak yitte rek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 te yëg lu nu ko mën a defal nag lu nu ko mën a defal nag yëgal yëg yëge ko liggéeyam bi moo ko gën kon loolu rek mooy sabab si projet karamati xatu yadi di projet cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bassirou li ko tax a jóg moo di bindaat xasiday cheikh Ahmadou Bamba yi toppaat leen diwaani xasida yi nga xam ne ñoo nekk ci projet karamati xatu yadi képp koo xam ne te woon na ko mën na dem ci librairie islamique yi nga xam ne ñoo nekkee ci Touba ak Dakar ak yeneen bërëb yi wala nga woote ci 77 674 29 45 wala 78 116 21 21 Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér.